Christian Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi euh, yow expert nga en relation internationale ngay itam xeltu ci wàllum politique euh, ci liñ ko nar a dooree waxtaan bi bokk na ci li nga xam ni itam moo di parti euh, politique bii di PASTEF les patriotes africain ñoom daanaka ginnaaw atu yàlla ba ñu toogee amuñu benn activité politique gis nañ li ko lool ci jamono ji nga xam ni itam ñu ngi wax ci lu jëm ci wàllum doxalin. Euh, bu yees wi nga xam ni itam war nañ koo am ñu ngi wax ni sax usman Sonko nee na dana def ab tournée ci yenn dëkk yi nga xam ni itam ci diwaanu Sahel bokk na ci itam ci Guinée Conakry alors Christian Sambou lan lañu ñu war a mën a gis ci demarche euh, leader bu parti PASTEF bii di Ousmane Sonko ab Afrique bu taxaw. waaw lu ñu mënta wax ci ci PASTEF mooy ci njëlbeen mooy euh, néew na ci Afrique nga am parti d'opposition bu gagné élection. présidentielle au premier tour avec un plébiscite de pour 54,28 54,28% euh, euh, euh, donc loolu lu muy wone mooy parti Pastef tey parti au pouvoir la donc parti bu dëgër la mais loolu mën na bañ a doy puisque si suñu suñu sous-région donc il y a des appels en fait à la souveraineté boo xoolee Mali ba ci Niger ba Burkina Euh, réew yooyu yëpp euh, souveraineté moo moo leen lal ay militaire ñoo nekk ci ci ci bopp bopp réew bi Pastef tey mën na euh, yokk dooleem Ousmane Sonko bu demee ci ci réew yooyu def ay visite mën a partager ak ñoom seen programme seen feuille de route pour ñooñu mën a dellusi qui euh, dans le cadre de de de de la gouvernance dans donc loolu lu yokku lu yokku lu yokku Pastef la te Pastef parce que euh, parti implanté le Sénégal dafa nekk parti tamit panafricain donc il faut que mu wonee boppam ci scène euh, scène africain euh, scène africaine waaye tamit scène international donc visite yooyu xam naa ci ci objectif yooyu lay lay jëm a lay répondre mm-hmm. yow dafa am li nga xam ni jàngat nga ko en tant que chef de l'État Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko war a fa dem foofu en tant que politique soubassement bi lan la waaw am na am na politique bu ci lalu parce que euh, visite officielle ci ci euh, Bassirou Diomaye ci dëkk yooyu ñuy naan euh, entre guillemets dëkk putschiste donc transition militaire la transition politique mën na xaw a ñaawal der der euh, Sénégal donc euh, le fait que premier ministre Ousmane Sonko sous la casquette en fait de chef de parti PASTEF euh, mën na dem ci dëkk yooyu c'est une manière aussi contourner genre image image dëkk boobu. ak débat bi mu nar am voilà débat bu mu war a am ci ci biir dëkk bi. donc Ousmane Sonko bu demee ci réew yooyu dafay dem en tant que chef de parti waaye tamit dafay dem en tant que en tant que en premier ministre donc mën a doxal yeneen dossiers yoo xam ni du Bassirou Diomaye jaxaar moo ko mën a doxal ci boppam euh, directement mais tamit boo xoolee tamit ci ci ci ci njiitum Pastef Ousmane Sonko dayoo bu mu am ci sous-région bi ci Afrique donc xam naa euh, stratégie politique la le fait que Bassirou Diomaye jiital ko ne ko demal ci dëkk yi yoo xam ne man mënuma ci teg sama tànk pour l'instant pour mën a doxal yeneen programme léegi lu pro yan programme yan feuille de route la mën a doxal mooy proposer modèle panafricain wone njiit yooyu que effectivement mën mën nañu gagner démocratiquement que idéologie PASTEF idéologie panafricain mën na conquérir démocratiquement un pouvoir donc loolu lu lu baax lay doon ci Afrique mais day permettre tamit Euh, Pastef yokku dayoom ci euh, ci euh, ci ci ci Afrique mhm. ci biti réew googu sax ni ñu ngi wax ni ab ñëwum Jean-Luc Mélenchon fii ci diwaanu Sénégal li ni mel xam nañ ni prise de position Jean-Luc Mélenchon bu ñëwee fii ak partenariat bi nga xam ni moo ko nar a lëkkale ak parti Pastef finalement dina am ku ci gagné kan la ci. waaw Jean-Luc Mélenchon mooy euh, njiitul njiitul euh, parti euh, la France insoumise. insoumise oui. waaw bon nëbbul nëbbul nëbbul soutien am ci waa PASTEF yàgg na soutenir wa PASTEF di ko fësal bu baax a baax di participer ci ay meeting waa PASTEF sa foofu ci Paris donc mën naa ne Euh, parti Pastef à travers Ousmane Sonko mën na ci gagné bu baax parce que day yokk dayoom tamit ci international wone ni que mën na euh, mën na waxtaan discuter euh, ak leader bu mel ni Jean-Luc Mélenchon koo xam ni parti am bokk na ci trois partis les plus grands en fait de la France beneen bi Jean-Luc Mélenchon tamit da ciy gagné parce que Jean-Luc Mélenchon à travers la visite mën na woon français yi tamit citoyen français yi projet bu ñuy défendre ñoom mooy projet euh, d'une euh, d'une gouvernance tamit euh, vertueuse euh, de rapport égalitaire entre France ak ancienne colonie dont dont le Sénégal projet boobu mën na gagner donc France insoumise genre projet yooyu lay défendre mooy égalité justice donc gauche radicale donc euh, visite boobu day permettre convaincre tamit concitoyens yi que projet genre projet yooyu mën nañu jàll comme nu mu jàllee Sénégal donc ñaari yi yëpp dañ ciy gagné bu baax donc idéologie gauchiste radicale mooy gagné quoique panafricain yi ñu mel ni ñoom Sonko ñoom bokk bon pour pour ñoom bokkuñu ci gauche bokkuñu ci droite ñoom euh, ci pragmatisme lañ nekk ci panafricanisme lañ nekk mais ci lu bëri dañoo seen seen point point de vue dañoo convergent comme euh, le fait de dénoncer euh, les rapports inégalitaires entre France ak ancienne colonie yi mais waaye tamit dénoncer en fait exploitation des multinationales loolu yëpp en fait mën nañ ci waxtaan te xam naa ni Pastef mën na ci gagné bu baax parce que France Insoumise tamit du parti du parti bu ndaw parti bu am expérience la. Mhm. parti bu am euh, ay député yu xarañ lañu donc euh, mën nañ ci gagné gagné te mën nañu améliorer waa Pastef seen image ci internationale notamment la France. ñëw Sénégal waxtaanee euh, ci démission Ousmane Sonko ci mairie bu Ziguinchor Birame Souleye Diop itam Thiès Nord ak yeneen membre yu gouvernement yi nga xam ni itam daal nañ leen di nommé ci seen ay poste maire itam démissionné nañ. mooy logique ah bien vrai que délai bi euh, xaw naa yéex un mois la woon. waaw lu logique la donc lu logique la ñu ngi ko doon xaar sénégalais yu bëri ñu ngi ko doon xaar mais lu ñuy rafetlu la tamit parce que voilà cumul cumul de mandat tamit day day day yàq lu bëri ci liggéey euh, liggéey euh, liggéey ji ñu jiite mais lu ñu mënti wax ci clim cumul de mandat tamit mooy amul loi bu ko encadré. Mm-hmm. amul cadre juridique bu leer. Euh, donc euh, promesse de campagne la euh, tënku nañu ci promesse de campagne boobu lu ñuy rafetlu la tamit parce que néew na ñuy gis ay njiit yoo xam ni voilà dañuy def ay promesse de campagne ñëw nag dëggal ko donc démission ay ñoom Birame Souleye ay ñoom Ousmane Sonko ci seen bopp mairie lu ñuy rafetlu la léegi yéex yéexaay bi mën nañ ko jàngat ci lu ci lu bëri mën na nekk tamit temps de préparation seen seen base parce que balaa ngay démissionner tamit il faut nga nga discuter ak ñu la ñu la. surveiller say arrière. surveiller tamit say arrière mooy deuxième point bi parce que pour ministre tamit politique la donc politique mooy joxe euh, mooy joxe nguur. Mhm. donc yooyu yëpp il faut nga assurer wu tamit sa arrière am na ku lay remplacer. te euh, kooku dina doxal doxal sa politique donc yéexaay bi loolu moo loo ko loolu moo ko mën a waral. E, e, lu lu ñu mën a rafetlu loolu daal daal waaw démission yooyu. naka nga jàngatee léegi génnup euh, Aminata Touré est-ce que du indi euh, féewaloo ci euh, biir coalition jomaay président moom dafa mel ni ku xaw a choqué sax ci li nga xam ni moo jëm ci appel à candidature yi. waaw ah, Aminata Touré bon soutenir na bu baax coalition Diomaye. Euh, ba ñu gagné donc principe mooy euh, voilà euh, xeex nañu ñu ñoo xeexandoor donc ba gagné nguur gi donc war nañu gouverner ensemble donc ci loolu maa ngi rafetlu wax jooju position boobu donc position voilà femme femme de de caractère la tamit mais mën na mën nañ mën nañ tamit Euh, ñaawlu wax ji ci le fait que euh, ñoom Diomaye euh, coalition Diomaye ci ay ay promesse de rupture lañ leen falee tamit hmm. donc tey bu ñu proposer ay ay poste à candidature donc ci ci logique boobu la ci programme ci programme boobu la donc mën nañu rafetlu loolu mais quoi qu'il en soit donc Aminata Touré ku war a bokkul ci gouverne ci gouvernance bi ci gouvernance bi xaw ma ban poste ci dispositif bi la war a la war a occupé ku mhm. am expérience la euh, koo xam ni tamit euh, loxom ci ci voilà loxom en tout cas ci lu ma jot a xam lu ma jot a lire euh, set na ci nu ñuy yoree réew mi donc ñoom profil Aminata Touré daal doo gouverner <laughs> te doo ko boole ci pour nooy gouverner nooy gouverner euh, nooy gouverner askan bi hmm. bu fekkee ni war nañu mun a leeral bu baax appel à candidature bi ci naka noonu itam la ñu nekk di placer seen ay nit. waaw tout à fait loolu loolu mën nañ ko comprendre parce que appel à candidature yi tamit comme euh, interdiction de cumul de mandat yi amul législation bu ko leeral. Hmm. donc il faut il faut du temps pour apporter les réformes euh, qu'il faut. donc euh, mais en attendant il faut que ñu placer tamit seen euh, seen nit de confiance yi ne serait que pour euh, la période des audits donc euh, le temps que loi yi tegu loi nekk en place après cela mën nañu teg appel à candidature mais jot naa jot naa dégg à travers voie de presse. oui par voie de presse que que voilà que président da daa bëgg euh, appel à candidature sur certaines fonctions de de responsabilité. Mhm. donc loo loolu loolu lu am solo la léegi nag ñu xaar bu ci kanam nag xam yan yan euh, fonction lay lay lay ciblé moom ak euh, Ousmane Sonko quoi qu'il en soit ñu ngi xaar bu baax appel à à parce que day permettre tamit. euh, gouvernance bi gën a donc les personnes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut donc méritocratie dafa am solo ci dëkk day joxe exemplarité euh, day day day tax tamit citoyen bu ci nekk farlu ci liggéey bu la jox mu am tamit euh, ay résultats ay évaluation de performance. des ci wàllu politique jeexalee ko itam parti démocratique sénégalais ñoom euh, daanaka ñu bëri ngi wax euh, remobilisation politique ci naka noonu itam ndax tey parti démocratique sénégalais tànneef bi nga xam ni def nañ ko ci Karim Meïssa Wade ngir mu jiite seen liste ab absent bi nga xam ni itam nekkul ci nim réew est-ce que loolu ça peut faire l'affaire. waaw tout à fait waaw donc quoi qu'il en soit. quoi qu'il en soit le fait que Karim Wade ñibbisi ci réew mi crédit politique lay doon cest day permettre waa parti démocratique sénégalais gën a mobiliser parce que mënul toog euh, bitim réew bëgg a jiite euh, jiite euh, parti parti politique war ci am confiance bu war donc il y a tout un travail de remobilisation des délégations pour loolu nag pour liggéey boobu ñoom il faut que Karim Wade ci boppam ñëw ci terrain bi ci à cette à condition que lu mën a remobiliser en fait euh, mën a Sénégal moo doon gën. mooy gën mooy gën mooy gën mooy gën euh, pour euh, waa parti démocratique sénégalais mooy gën xaw ma ndax mooy gën ci moom <laughs> waaye daal pour parti bi daal mooy gën mooy gën pour parti démocratique sénégalais. Christian Sambou ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi. maa ngi lay fay Mbemba. di fàttali ni yow expert en relation international nga itam ngay xeltu ci wàllum politique. ci wàllum politique.